It's all about politics. And the tool. Right, for Morgan. The blasphemous the devil. Uh, look at your cow like this. You get it. Hey. Ooh, I'm my monkey. Ooh, I'm my monkey. Ooh, I'm my monkey. Ooh, ooh, Sachi Wanyanga. Ooh, I'm my monkey. Ooh, I'm my monkey. Ooh, I'm my monkey. Ooh, ooh, Sachi Wanyanga. شارلي فرصة جمعة خلق يلاف أم بلا بلالي يا وخم ليك لالي داف أمول بالت أمول بلاس ورن يطول في أمول لكي وقت بريد أسامبلي فيول الواي لكي تبي أفر إنسولان وقت نابي ديكو صلتو Latif Juutu jaay ngorom Souleymane Jules Diop moo mun a ware Amsatou Sidibé moo mun a wure règlement code yi daw Tambalaaf ministre Mimi Touré président xëy doon kaña xar yi daaxee di ko liggéey xaajale dajale bëgguloo liggéey la nga fàtte ne mos nuur du way transhumance mi nga sa tubay mu barak loo li ma ragal loo asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziar di leen màggal di leen ndamoo di leen tiitaroo teela la saari day naayit nag xam ngeen nu muy demee opération rëbb dëmm donc tey la saari day opération rëbb dëmm ordre donc voilà kon nag guys ñu fas yéene troxal seytaan ci opération rëbb dëmm ginnaaw buñ leen nuyee sant leen ziar leen màggal leen ndamoo leen tiitaroo leen yes saay yo tell Saturday Saturday night Saturday night Saturday night. tell us Saturday, Saturday night, Saturday night, Saturday night. Come on, tell us Saturday, Saturday night, Saturday night, Saturday night. Operation Rebudum. Yeah, urang, wang, urang, wang, urang, wang, oh, urang, wang, urang, wang, urang, wang, urang, wang. uang ah urang uang urang uang le urang uang au cœur de la République bananière avec blast Master Amo de Demo Pamo Rhyme Lyrical Pending Pandang Kilogan Sadik Mr. a Tell us Saturday, Saturday night, Saturday night, Saturday night. Come on, tell us Saturday, Saturday night, Saturday night. Saturday night. Tell her Saturday, Saturday night, Saturday night, Saturday night. Oorang, oorang, oorang, oorang, oorang, oorang. Oh, oorang, oorang, oorang, oorang, oorang, oorang, oorang. Oh, oorang, oorang. Yes, I. Konak kamian kunumi demesa asune. Shak. Uh, Saturday. il y a l'opération Ordre avec les brigades BP Yuli brigade Boub Boub brigade Suqi Muqi déclenché nañ leen ci town bi ñu fas yéene rëbb dëmm yi ak nooxóor yi indi ko jox ko peuple sénégalais bi di waxal ni encore une fois comme faral di defe. man mola Morgan, yag na len ko wax ci xex ne len xex kenn momuma ci ci kenn ci parti politique ginaaru kenn ci ñuy politique nanuma yag ko wax discours souvent euh, ñi nga xamni société civile bi seen xex day mengo wala day arranger opposant lolu mo musa am dans l'histoire des luttes sociales Manam ñi xex dañuy opposé pouvoir donc dañuy arranger souvent ñi nga parti euh, opposition bi nonu lañ ko Abdou mu ni Abdoulaye Wad, mu arrangé ki nga ni moy Macky Sall arrangé opposition bi ba ñi nga far parti gis ni gis ni ñun far parti au pouvoir bi di gis ni ñun dañoo jeng dañoo parti opposition tandis que jenguñu deug mo ñu ñor ñu indi ko diko jox sénégalais mu neex mu nakari ñu wala ñu saagañu de toute façon on dira la vérité rien que la vérité et toute la vérité avec impartialité duñ ci far fenn duñ ci bokk kenn wutuñu lu neex kenn nation bi mo ñu yitteel te mo waxat ko ne leen xex bi ñi xex demuñu ci ak fanatisme waaye it demuñu ci ak ñuy topp ci ginnaaw kenn wala doon geenu kenn wala doon doomu kenn ma leen xeex bi social bi ñoo ci jiitu Ousmane Sonko ñoo ko ci njëkk ñoo ko ci njëkk a damm ñun lañ ci njëkk a jàpp Nous ñun lañ ci ñëk door lif ñun lañ ci ñëk a lacrymogène bobu mom dans la vie politique kenn musul xam dans l'histoire né amna sax ku dudd Ousmane Sonko des ñi ngi xex di xex franc CFA di xex pour am autonomie di pour le panafricanisme di xex pour Sénégal am démocratie am transparence am liberté Bagn koy def sincèrement dans l'histoire politique kenn musul xam ne doomu sax Ousmane Sonko ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñun au front maintenant comme dit, ko avec Ousmane Sonko et sans Ousmane Sonko ñun dañ koy Ousmane Sonko daf ñu fekk ci xeex bi mu fekk si ñu bu ko yàlla ne day falu dina falu te ñun dinañ continuer suñu xeex bu yàlla ne du falu du falu mais ñun dinañ continuer suñu xeex donc xeex boo xam ne la Ousmane Sonko daf ñu ci fekk te dinañu ci bàyyi allah kulli àll même bu dee dix ans quinze ans dinañu fi bàyyi ñuy continuer parce que xeex bii ñun dinañ téye bant daw di di ko xeex. parce que xeex bo xam ne la moo ñu forger moo ñu former moo ñu def lu ñu doon tey bu ñuy wax naan euh, rab muy lutte sociale bu ñu yàgg def ci kaw loolu ñu tàmmal sénégalais yi liñ naan background check li nga xam ne sénégalais yi tàmmuñu ko woon depuis bu ñuy fal nguur sénégalais yi dañuy faral ci folli kenn fal kenn parce que kooku da leen a soofantal wala kooku da leen commencé soof wala kooku dañuy lu naan mer ngemb Sénégal noonu la mus a mooy euh, Senghor fekkee wuñ ko mu toog ba mu nekk mu jox ko Abdou juuf abdu juuf nag ñu juddu fekk ko fi mu yor pouvoir bi toog ci di néewal doole kii nga xam ni moom mooy euh, Abdoulaye Wade diko ko ci kasso yi di and ak mom di ko ñun jeunesse bi nga xamni ñu nek mag commencé di ba fi ki nga Abdou Diouf fi Abdoulaye Wade ci alternance 2000 Abdoulaye Wade commencé changer constitution bi di def ak nuko nexé ñu Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade fi mu def li muy def ci mandat ñu tàmbale di ko xeex comme niñ ko tàmbalee di def di ko xeex pour mu jóg fi parce que ñaari mandat lañ ko dénk mu bind ko ci livre wax ko ci ojo wax ko fépp donc ñu ne nag li ñuy dal démb ak bërki démb moom mooy par défaut yi ñuy fal président yi moo fi war a jeex donc il faut ñuy def lu enquête de moralité Madame dem càmbar dugg ci dundu doomu Adamay, yi loqati seeni mbóot dugg ci seeni waañ yi visiter seeni néeg yi dugg ci suufu rondal yi lal yi éponge yi tout dembo ak bërki démb ñu ko background check wala ñu naan ko enquête de moralité doomu aadama bi ci mi paré pour euh, di laj baat pour sénégalais jox ko ñuy commencé di liggéey lolu lolu moy enquête de moralité bagn ko défé it def nañ ko fi ñu beuri bu ñu ñëwé def suñu enquête jox leen ne leen ki ni la mel def nañ ko fi Macky Sall def nañ ko fi Maram Faye def nañ ko fi ministre yu bare def nañ ko fi député yu bare def nañ ko fi ñu euh, bare def nañ ko opposant parce que def nañ ko fi ay Bougane def nañ ko fi donc képp ku dugg politique bi dinañ la càmbar ci li ngay ñu pouvoir dinañ la chambre. vous n'êtes pas sans savoir que depuis boobu bàyyiwuma Ousmane Sonko de déedéet nu may càmbaree bay càmbar kilifa réew mi Macky Sall ngeen ngeen def ko président noonu lay càmbaree it ñëpp ba ci Ousmane Sonko ba ci Barthélemy Diaz ba ci euh, lu mu tuddati euh, Amadou Ba ba ci Khalifa Sall bàyyiwuma kenn ba ci Déthié ba ci Déthié maa ngi ci ay document am bàyyiwuma kenn parce que man peuple bi rek mom fi baye peuple bi kese la gëm peuple bi kese motax may wax kenn kenn ci sénégalais momuma jënduma ci parti politique yi ba ma koy waxal parce que fuma teud na law ak sama ngor luma am lek luma amul muñé ko yalla yalla rek la gëm ci kaw loolu fan yëpp maa ngi ci ça fait maa ngi boucler le dossier de Ousmane Sonko démb laa ko boucler léegi nag sincèrement di wax ci sama akulay taalaa Ousmane Sonko yalla, waxuma sénégalais de. Ousmane Sonko yàlla suñu borom subhanahu wa ak Muhammad sallallahu alayhi wa ak bépp mboolem euh, malaaka bépp mboolem euh, euh, yonent ci barki suuf si ak asamaan si di wax rek te yàlla bañ ci ragal dara bañ ci dara jël naa sama temps lool ci Ousmane Sonko la ca baax ma wax la ca bon ma wax sénégalais yi c'est à de juger dugg naa ci néegu Ousmane Sonko dugg naa ci suuf rondalu Ousmane Sonko dugg naa ci lalam ba naa ko dugg naa ci almoir ya dugg naa maanaam wër naa ko fépp ci aaba ba waaye ñi nga xam ni laay yónni di yabal ñuy dem di indi ah ñëpp seede nañ ni usmaan Sonko du sàcc ñëpp seede nañ ni Ousmane Sonko du triyande ñëpp seede nañ ni Ousmane Sonko yorulul askan wi fukki dërëm ñëpp seere nañ ni Ousmane Sonko dans le domaine de la gestion sociétale nit bu jub lolu document yépp lolu le firnde quinze ans impôt domaine musu Satch, sàcc détourné musu rawale fifteen macha ñu dugg nag ci côté bi nga xam ni moom le côté humain de la personne le côté murs de la personne le côté doomu aadama de la personne sincèrement li ma fa gis neexuma li ma fa gis am naa fa déception li ma fa gis bu la waxee ni nalaw naa barki alxuraan ba suñu jonn yàllay tey nii moo tax ma sol samay lunette sama bët yaa ngi xonk coy vraiment lañ ma tegal ci côté mërs neexuma de te damay wax rek te yàlla tax ba ñëpp soxlaa lumière maa daw indil leen document wu Ousmane Sonko ne violé te ba léegi violé wul ba léegi violé de Adji Sarr Ousmane Sonko violé wu ko mais barke alxuraan lañ ma tegal ci samay loxo ma gis ko billahi démb dama doon dama naroon dee dama doon dee man dama doon xaru da ngeen doon dégg ni xaru naa mais dama ne balaa maa xaru ma def sama testament ne leen ah vraiment j'ai été superbement déçu très très très déçu par li nga xam ni gis naa ko ñu indil ma ko ci ay mbiru usmaan Sonko ci ojo usmaan Sonko di wax may dégg ci vidéo usmaan Sonko di jëf may dëgg may gis may gis wax déglu leen bu baax nag yàlla rek moo tax may wax te lépp dinaa ko teg damaa yàgg teg de kenn Ousmane Sonko laay waxal bu kenn waxuma ak bu kenn jéem ne waxul dëgg bu kenn jëm ne day fen te ngay dimbale Ousmane Sonko Ousmane Sonko laay waxal tey balaa ñoo yegg foofu te barke alxuraan buñ fa yeggee billahi wallahi wa taalahi adduna dina tukki nopp dina dallu te doomu aadama bu gis loolu di nga daw lu yàlla teg si samay lox ba mu desee dem au front dem naa au front indil leen lépp ne leen complot am na waaye am na fu ñu jaarale seen complot foofu mooy point faible Ousmane Sonko indil nañ ma déglu leen de comme nu ma leen ko waxoon dama leen la waxoon histoire bi am na ojo ay ojo génn ma ne leen am na enquête interne enquête interne génn ma ne leen lépp maa leen ko waxoon de lépp ma ne am na ku ñu naan rijaal rijaal génn donc nu ma waxee woon laa leen di waxaat ne dossier buñ ñu ma indil ci Ousmane Sonko am nay ojo audio am nay vidéo am nay photo déggu leen de ñett yi am nay audio Ousmane Sonko am nay vidéo Ousmane Sonko am nay photo Ousmane Sonko am nay ojo Ousmane Sonko léegi nag du ma ñëw sànni ko fii di toroxal doomu aadama wala di comme nu ma koy defee ñeneen ñi am na lu ma ko mën a may ne ko Ousmane mu génn wax ak doomu aadama yi ci li mu doon réellement parce que kuy am deception man maa njëkk a am déception déggu leen man ma ne nalawuma démb barke alxuraan nalawuma sama bëri dafa suulu démb dama sonn dama dund tristesse boo xam ni dama yeewu guddi jàpp ba set julli ba suñ jonn yàlla de maa ngi wax ak yéen nii sama fit bi mi ngi rëf-rëf yi xol neexut maa ngi lox sama xol neexut barke alquran sama xol neexut sama xol neexut la ilaha illa allah wa billahi mina shaytan rajim ange billahi mina shaytan rajim ange billahi mina shaytan rajim maintenant lima wax damay wax rek te yàlla tax Ousmane Sonko lay woo comme Sénégal dafa am ay affaire mœurs dañoo gëm ay affaire mœurs dañoo gëm ay affaire sexualité dañoo gëm ay affaire u tëddee na kii audio vidéo télé et cetera et cetera loolu day xaw a taché wala tacheté liggéey doomu aadama bi bu doon tey Amérique la ñu ne kii tëddee na kii amul problème wala kii laal na kii wala kii am na audio amul problème mais Sénégal yooyu dafa compter loolu nag te la mu defalul ñeneen ñi dama ko defal Ousmane Sonko dama ko defal dinaa ko may pour mu exprimer wu dinaa ko may pour mu exprimer wu bu ko deful comme nu ma ko yàgg defee dinaa leen indil opération rëbb dëmm Ousmane Sonko benn par benn di leen génnal ne comme nu ma koy defee Ousmane xam nga kii comme nu ma koy defee ñëpp man bàyyi ba kenn de Ousmane xam nga kii lii ak lii ak lii génne leen preuve yi tegal leen audio yi tegal leen ngeen gis Ousmane gis nga kii génneel leen lépp teg na ma koy defee ñëpp man noonu rek laa koy defee background check enquête de moralité bu Ousmane sunk te nee naa leen bu metti bu bu ab déception day am maa war a njëkk am déception ko yéen ndax man sama dund laa ci bàyyi ndax man sama vie laa ci bàyyi ndax man sama gis samay parent laa ci bàyyi

parce que du ma seetaan nooni di génne loolu xam yor nañ ko xaw ma yoruñu ko di génne loolu fekk man xam naa ko di génne loolu di toroxal Ousmane di ko yóbbu foo xam ni di ko diri fekk man xam naa ko fekk man jot naa ci fekk man yàlla teg na ko ci samay loxo xàq la xàq dëgg rek te yàlla tax

te fi ak semaine prochaine bu ci Ousmane yeyul yàbbiwu ci tan duma fen sénégalais dé de fen sénégalais dé parce que joxuñu ma lekk joxuñu ma damay xex sama xex la né sama xex mo fi jitu Ousmane ndiek fi Ousmane mo fi jitu Ousmane ndiek fi Ousmane te mo fi muju Ousmane Ousmane day dem bayima fi maa ko fi jitu te bu day dem bayima fi en tout cas li ma leen di xamal mooy ngeen jàpp ko dinañ génne lépp incha allah dinañ piblier photo di ngeen gisal seen bopp <laughs> bu dee montage la wala original la dinañ piblier ñun photo bu dee montage la wala original la dinañ piblier discussion whatsapp pour le montage audio ou original la dinañ publier vidéo pour le montage ou wala original la dinañ publier audio Ousmane Sonko bu montage ou wala original comme nous ñu koy defee opération qui dëmm ci ñëpp background check ci ñëpp incha dinañ très prochainement continuer à élaborer en attendant je donne la possibilité et l'opportunité de Ousmane Sonko de sexprimé incha allah bu ko deful it na may jaareele politiciens yi benn par benn ci Macky sàll ba ci suuf noonu laa koy jaarale ak Ousmane Sonko ci début ba fin yàlla nag moo ma nattoo loolu bu ma nee bëri yëkkati dara dina am ñu jóg ne day fen seen intérêt la loolu du ma teree noppi waaye bu ma tegee firnde yi preuve yi noppi loolu nag yàlla moo ma ko bindee day mel ni Muhammad sallallahu alayhi wa jaar-jaaram yàlla baaxee ma ko mooy bu Muhammad di wax sallallahu alayhi wa dañ ko weddi woon giribanem ñu dem ba ci biir ñëpp nangul ko ma jël l'histoire de aji Sarr di wax wax lu bëri wax ne am na audio am na enquête am na tel am na tel nii la Ousmane violé wu ko lépp gars yi dañ maa saaga woon audio yi génn ak ñeneen ñi doon def live ñëpp ñëwaat ci Mollah ne Mollah wax nga dëgg donc lii miis naa ko ci sénégalais yi di waxte yàlla tax am ñenn ñu taxaw ne waxul dëgg tey fen waaye day bu preuve ñëwee nag

dinaa ko ko nangul dinaa ko ko nangul donc euh, yaakaar naa ni loolu rek moo newoon opération rek rëbb dëmm bi annoncé Ousmane que yor naa sa dossier yi yor naa lépp vidéo photo ojo message écrit lépp waxuma ay vidéo kese de gars yi dañuy wax naan parti bële ñoom Macky ñoom yor nañ benn vidéo ñi naan montage nanga man xaw ma lu ñu yor parce que lijjantiwuma leen dégluwuma leen it faruma ak man na ma ko yàgg defee di dugg di loqati noonu laa loqatee ba yor lépp léegi nag incha allah donc euh, maa leen bàyyi fii loolu rek moo newoon opération rëbb dëmm bi ah di déglu Ousmane Sonko di déglu tamit ay partisans am ci li nga xam ni ñoom buñ ci bëggee lu leen leer mun naa leen ko yónnee ñoom ñëpp dossier bu ma lépp ci Ousmane mun naa leen ko yónnee déggulee dama ne waa Pastef Ousmane ak ay ñoñam maa ngi ouvert ci ñoom buñ soxlaa moo yónnee leen lépp comme nous ma ko a gardé. ma nous rendez-vous inshallah très très très prochainement man du mot tonton lu de toute façon on n'arrête pas la mer avec ses bras ku ma xam-xam ni kuy xeex ak pouvoir du ay benn nit ñaari nit bu naan yow lii nga ak yow lan la moom moo koy kuy songu Macky Sall kuy songu ay waa këram kuy songu ay lu day ni pouvoir moo ko faalewul benn nit bu nekk ci internet wala ñaari nit la noo waxoo dëgg ak yooyu non non non dañuy tuuti sama kanam damay fël jàll incha allah dëggu leen dama doomu aadama nekku fi ku ma mun a téye ci sama dëgg gii ma ne doomu aadama nekk fi ku ma mun a détourné ci dëgg gi ma ne doomu aadama ak boo mun a doon nga bëgg wala nga bañ barki alxuraan laawaat barki alxuraanul kitaab yi benn doomu aadama munuma arrêté benn doomu aadama munuma détourné benn doomu aadama munu ma wax ba ma changé kooku clair ku ma sukk jur sax munu ko donc amul benn doomu aadama bu mun a wax lu ma mun a dugg wala loo xam ne danaa toog di ci xalaat man quitte avec ma conscience yalla motax may def rek on s'en fout on s'en fout éperdument donc je parle avec Ousmane Sonko avec tout le respect que je te dois avec tout le respect que je vous dois sincèrement li ma am ci firnde ci vidéo ci photo ci audio ba ci facture envoi d'argent Petit message Ousmane comprendre samay et si je parlerai je parlerai au nom du peuple sénégalais je parlerai au nom de la vérité d'Allah je parlerai au nom de ma nation au nom des martyrs je parlerai au nom de la vérité absolue de la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala te incha allah buñ ci jotee dinaa ko def mais pour l'instant fii laa yem ak yéen parce que sama xol neexut gisuma lu ma neex dajuma ci lu ma neex yoruma tamit loo xam ne dama koy xool sama xol sedd sànq yor naa loo xam ni di ko xool di ko xool di ko xool bay jooy barke alxuraan yorna lo xamni xam ko sank ni même pas une heure de temps ni di xol diko di diko xol sama xel mi di voyager billahi manam me lan mo waral li la ki kan la doon yónnee li lan mo tax mu def li lan mo tax dama ko khalaata khalaat ba sama rongon di tok ndax xol bima am ci waji ndax yene bima am ci waji ndax yeg yeg bima am ci waji ndax mbëggeel bi ma am ci waa ji loolu it moo ma daloon ca bi nga xam ni gëñ na wax sentiment ba ma daloon ca bañ naan Ousmane Sonko dafa dem Sweet Beauté avant moo génn ña ma nekkaloon man leen Ousmane Sonko du teg tànk Sweet Beauté ba mu ñëwee nee na dem na Sweet Beauté ma nangul ko loolu ñu ne dafa violé mun ba tey suñ jonn yàlla tey barke alxuraan maa waat ni Ousmane Sonko violé wul Adji Sarr foofu laa yam Ousmane Sonko violé wul Adji Sarr voilà léegi nag comme ni ñu koy waxee ubbi naa affaire yi ku nekk waxal lu la neex man yàlla rek moo tax may wax. kenn mënul wax lu may arrière loo lu may jëm dawloo wala xoolal waxtu bu jotaatee fu nekk nii sama téléphone yaa ngi mi ngi dox. du ma jël nag ñeneen ñu ma xamul waaye daal xam naa ni staff Ousmane Sonko ñoom ñëpp yor naa leen seen numéro ñoom ñëpp yor nañ samay contact bës bu ñu ma soxlaa bu ñu ma woowee <laughs> dinaa ci wax ak ñoom ñoom ñoom nday mbiliki te bu ñu waxee dinañ xam man xam naa léegi nag lu si des moom y problème. man dëgg moo ma ñor dëgg dama ne képp kuy dugg ci état bi képp kuy aspirer à être un dirigeant képp ku nekk ci nguur képp kuy dox ci nekk ci nguur dama ne man dinaa la defal opération rëbb dëmm opération rëbb dëmm c'est sa vie privée man c'est samedi c'est la vie privée de nos de nos autorités c'est la vie privée de ceux qui aspirent à diriger ce pays donc c'est mon concept ñep dañ fi jaar chaque jour je wax Bougane Gueye c'est sa vie privée chaque jour je wax Macky c'est sa vie privée chaque jour je wax ñeneen ñi nek c'est leur vie privée les samedis, c'est opération rubdum, c'est le background check, la vie privée de nos autorités, la vie privée de tous ceux qui aspirent à diriger ce pays. Donc, c'est mon concept. Donc, je sais ce que je fais, Donc, dans le fond, les il y a les gars, pour l'instant, comme euh, la amon rek, Ousmane Sonko daa demoon suite boote ne fa ils ay la ay nangam après bu mu ils sont ci léegi dama ne man yor naay ay bagage yuñ ma indil yu doy waar ci sama waa ji ci sama waa ji nga xam ni defal goral naa ko yendal naa ko fanal naa ko fanaanal naa ko woy naa ko yuuxu naa ko tagg naa ko lépp lu ñuy defal gor defal naa ko ko goral naa ko goreel naa ko xéel naa ko gontal naa ko waxal nako, ko wayal naa ko xeexal naa ko kaasal naa ko génne naa ko ba génn ko fu sori sax fu sori donc kooku moo ñëwaat taxaw wax ne man gis naa lii daj naa lii loolu nag balaa ñu caa yegg noonu ya di ñu xamal wala di gis mun na yàq lu bare bare bare bare bare donc balaa ñoo yegg foofu Ah, voilà Feel I am again. one love summer guys eh, à bientôt incha inshallah. peace and I'm out all right